Sakura! maa ngi tudd Souleymane Aydara maa ngi maa ngi tudd Souleymane Aydara man maa jiite élèves yi fii ci lycée Malick Sy jotaguñu maanaam évaluer guñu si not yooyu noonu maanaam jotaguñu suñuy notes lu ñu bëgg mooy am suñuy sogoo notes te lu nga xamante ne ñun man personnellement lu ma mënul comprendre mooy lan moo tax ñi bëgg ñu def deuxième composition te jotaguñu suñuy not premier semestre loolu franchement wax dëgg yàlla mënu ma ko te loolu xam naa xel nangu ko wax dëgg yàlla te maa ngi woo état bi maa ngi woo yi di woo élèves yi di woo ñëpp ñu bokk xàccandoor dóorandoor ñi sauver école école sénégalaise bi année bi ñu sauver xam nga ko ñu ngi continuer def rétention de not ñi ngi téye notu xale yi ba pare dañ cee boole ne sax am na ci sax établissement yoo xam ne dañ ne bu kenn déposer sujet composition ba pare am na ci établissement en même temps dañ ne sax bu ñu nañ boycotter surveillance yi mais lycée Malick Sy Dieu merci pour le moment prof ñu ngi déposé seen sujet composition ba commencé nañoo composé donc loolu moo xam loolu moo tax xam naa loolu moo indi lii moo indi xale yi xale yi dañu kontaanul parents d'élèves si nekk ci njàqare waxuma laa nag ñun administration